ñi seetaan ci info réew mi ñu ngi leen di nuyu ah comme ni ñu koy defee rek bi kan bi commencé ba léegi di leen demal ci li nga xamante ne rek mooy fan zone yi nga xam ne mooy am ne mooy Tëngéej tey nag ñu ngi ñëw fi nga xam ne mooy Tëngéej ñëw euh, fekkee si fii nii fan zone bi nga xam ne moo fi am ah fii euh, rek ci wetu kër gi nga xamante ne mooy Pape ba Diop ah gis ngeen fii ni nga xamante ne noonu la mel ah, gaa yaa ngi fii sénégalais yaa ngi fi festival waa Tëngéej un peu partout fu nekk nit jóge fa ñëw rek ngir teewee si rek li nga xamante ne mooy fan zone bi nga xam ne moom la ñuy def fii nii ah ku gis na li nga xam ne noonu la sénégalais yi jëlee li nga xamante rek mooy euh, final bi

83% des personnes supportent le Sénégal. C'est marqué, hein, les votes, c'est marqué. Merci à vous de voter et surtout de ça, la touche de Sarr. Au milieu de terrain qui allonge. C'est un cadeau, ça, c'est 6 mètres, venir un héros au Sénégal. Mais bon, tout reste à faire. C'est Bouna, c'est Bouna Sarr qui tire le coup fort. Au deuxième poteau, c'est écarté de la tête par euh, Mouna. Bouna. Il est passé par Bouna. Au du de par contre, n'est pas bonne. Dommage, touche pour l'Egypte, au poteau de corner. But de Bamba Dieng, mais on reparlera de Bamba en deuxième mi-temps. On va vite repenser à Bamba. À la place de Famara pourquoi pas Ou un détail. Merci Diallo pour l'abonnement. Moussa, Consent, Mohamed, Égyptien, Johan, Yves. la touche de foot. alors mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fi nga xamante ne rek mooy Tëngéej comme ni ma leen ko waxee ci fan zone bi nga xamante ne dañ koy def fii alors gis bi ni nga xam noonu la demee match bi seere na lool ba egg nañu li nga xamante ne rek mooy prolongation donc ci loolu la ñu toll alors euh, yi dem nañu noppaliku ji ah gis ngeen ñi nga aussi ñooy supporters yi xaw nañoo jaaxle lool mais yàlla baax na ah ba tey rek ah supporter du tàyyi du sonn ci supporter li nga rek mooy équipe am alors euh, gis nga li nga xamante euh, noonu la. pare ba dem nañ li nga mooy prolongation incha allah. instant bi ñu si deuxième mi-temps si deuxième mi-temps bi nañ xaar prolongation bi démarré incha allah bu defee yàlla jàppale ñu waa Sénégal mën a gagné incha allah rabbi bu defee mbooloo mi yëpp jàppale ñu mën a gagné incha allah final bi incha allah rabbi. alors mais mën nañ ci am yaakaar parce que ñi nga rek ñooy Lions yi gis nañ ne ñoom ñoo dominé ñooy premier mi-temps bi ak fii Sénégal loolu la ñuy ñaan mais aussi gis nañu équipe bu Égypte boo xamante aussi ñu ngi tenir bu baax a baax vraiment mais aussi am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu ngi ñaanal rek suñu gaynde ñu indil ñu coupe bi comme ni ko ñëpp di ñaanee comme ni ko ñëpp rek bëggee kon xam naa rek euh, gars yaa ngi noppalu gis ngeen supporter ni nga xamante ñu ngi toog rek di supporter aussi di xaar li nga xamante ne rek mooy prolongation bi kon xam naa rek ñu mbokk yi ñi sétane sur info rew mi et le quoi ñu ngi leen di waat bu baax di leen wax ni rek ñi ngi fi nga xamante ne rek mooy tëngeej euh, koñu Pape Bouba comme ni ngeen ko gisee rek ñi ngi fi nga xamne moy fan zone bu mag bi fi faral di am euh, saa yu match ma taxaw ak sama xarit bu rafet bi gis ngeen ko ni mu def ni di supporter suñu gay yi euh, ñu ngi lay nuyu ma ngi leen di fay tour bi naka la man Jaareetu Ba Jaareetu Ba a ah, bapulo jeri borom nak ak ñaw a <laughs> ah, bapulo no dundé li nga xamantene rek moy marché bi metti trop trop trop trop waaye duñ koy gérer. stress bi stress bi metti na trop. waaye duñ koy gérer yalla baxna yalla yàlla mën nañoo may ndab ci li inshallah ah, def nañu euh, premier mi-temps deuxième mi-temps dem prolongation nan nga nan nga ban ban ban ban jangat nga def ci li nga xamante non la lion yi teniree match bi. ah mieux vaut def nañ luñu mën mun de dafa dess rek way def nañ luñu mën mom xana ñu bay lepp ci loxo yalla rek. am nga yaakaar ci tiro bi bi. ah amna ci si yaakaar moom bu baax sax. yaakaar ne coupe bi ñëw fii. incha allah incha allah séenee jubilé. incha allah <laughs> yàlla baax na yàlla mën na ko. Ah, ok merci beaucoup. ok. Eh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi fay. tur bi naka la. Mouhamed. Mouhamed Mouhamed waxal bu baax xam naa da ngaa stressé mais garaawul décompressé day baax. waaw ah, day baax day ñëw coupe bi ñëw. nan nga dundee li nga xam ne mooy match bi. bi ah bi moom ni ko seetaanee moom baax na mais Sénégal dafa waroon dugal quoi. war ñoon egg ak fii sax gars yi. ñu woon egg si si si si euh, nu mu tuddati prolongation bay dem séedéer. waaw waaw war ñoon egg prolongation dañoo waroon dugal gagné mais incha allah coupe bi baax na day ñëw day ñëw. gëm ngeen ni daal dina ñëw. waaw gëm nañu dina ñëw fii. yàlla baax na. concentré wu nga ne waaye mënuñoo bañ a wax ak yow tur bi naka la. Abdou Wahab. Abdou Wahab Abdou euh, gis nga li nga xam ne noonu la match bi demee entre Sénégal ak Égypte euh, nan nga ko dundee. match bi bi métti na loolu mais ñun waruñu woon sax yegg fii nii prolongation bi sax waruñu fi woon yegg waroon nañ jeexal match bi dès le début avant ñu yegg fii nii mais lu yàlla def rek loolu la yàlla dogal yàlla yàlla may ndam bak seen naa Mouhamed ah dafa mel ni yaa ngi bëgg a baax. waaw affaire yaa ngi bëgg a neex yàlla yàlla def na si jërëjëf si bak sëñ dañuy wax ne Égypte dafa fort trop ci li nga xamante ne mooy tiro bi. seen góol bi baax na trop fort nañ trop mais tamit. sénégalais yi buñ buñ xalaatee ne am nañ bàyyi si seen ginnaaw rek dinañ dinañ dinañ def seen kéttalaay katam pour andil ñu victoire incha allah. yàlla baax na yàlla ndam li ñëw Sénégal la baax na incha allah. 手放うバレなんです。 moo ñu gën eh ñun ñëpp Bamba Dieng waaw tax na ma laaj victoire bi heure yi dëgg fa neex yàlla kontaan nañ quoi franchement parlant waaw waaw waaw amul problème franchement parlant bii mooy fois yàgg nañ ko wër wax dëgg fa neex yàlla kontaan nañ sori joxe nañ luñ mun luñ am wax dëgg fa ne yàlla nañ Bamba noo de. barke ngeen waaw barke ngeen tuddee victoire bi. waaw neex rek mbégte rek. billaay wallaay suñu xool seede na. war na Serigne Touba. barke Serigne Touba Mbacké. ba léegi. depuis indépendance ñu koy door a jël. bi ma ba léegi. sila sila duwal bi dafa gaaw. duwal bi duwal bi waa waa. waaw da ngeen di def tànk. ba léegi bi ma juddoo ba léegi mosuñu ko jël suñu ko jëluñu woon. tombé ma dee dañaa dama ay gaaf. kon sant naa yàlla. Ah, non non ginnaaw dañuy sant. yaa ngi dégg Seydina ma ko avant tout sant suñu ñaari waajur tamit mais yaakaar naa tamit lii du kat si ñoom li final bi ndax soo xoolee 2017 dañ toogee quart de finale 2019 ñu toogee. final 2021 tamit yàlla daf ñu jël ko yaa ngi dégg kon kàcce ngaalaama Aliou Cissé di rendre hommage tamit Bruno Bokandé ak tamit tamit Bruno Messi ak Pape Bouba Diop na yaakaar naa tamit ñun ñun li lañ mën a sénégalais lii na na na soo xoolee depuis 92 ba léegi yaa ngi dégg depuis 92 ba léegi mënuñoo am coupe kon tey lii mention spéciale Sénégal allo kooka la susu baba tey yàlla nga xaar